maanaam loolu yàlla dindi na ko te lañu woon kenn ki dee léegi mu kees ne ko Mbaye Babacar sa sëriñ a ngi nii kii nag ku dëgër ci mbir la maanaam bu xësee ngànk benn affaire caaxaan du ko fa jëlee loolu feeñ na kero mbay fekk jamono boobu mhm. mi ngi topp benn sëriñ bu ñuy wax di gëstu ci moom xam-xam waa di ko takkal ay bagages yu bëri mhm. mbay bima ma demee dëkk bu wax Nganda. and ak ku wax Keba. ci kër ben way bu ñuy wax Faafa. mbay mhm. mi and ak Ousmane drame ñeu fekk ma kër fafa ci ben neegu ñax ma nga tiim kamil ni Keba nga top ke kibi bi Ousmane drame dugg ci mbay ne ma señ bi mané ka kaa mu ma sama sëriñ nga ni Keba ne ko mbay ñaar ñii ma leen mëna présenter ndax mohammed Lamine maa fu indi. ba sa dess moy euh, Ousmane drame jang na seen kër auto juroom ñetti at yalla léegi nak mané ko kan ki mu ne ma ma ne ko bu ñu dajee day taxaw moom Ousmane Dramé lamb poosam daal di génne ñaar fukk ne ma wax nga dëgg yaa ngi bokk ci aare fii ne bi ma naka daan ma koy jox ne ma est ce que mën nga maa fekk jama gaajo ma ne fan mooy jama gaajo kebaane dinaa la yóbbu ma ne ko baax na rendez-vous bi kon jama la moom mii mu daal di ànd ak Ousmane Dramé dellu jama gaajo fekk moom bay Diop bu ànd ak waa ji day yóbbaale sareetam ak fasam mm-hmm. ak sémmiñam di daan dooleem pour di yóbbul waa këram mm-hmm. keroog ñun bi ñu demee muy ba def deux jour ma daan ni Kéba. Mm-hmm. fan mooy Jama Gaajo mu ni ma Mamadou Lamine ma ne ko ah, mu ni maa la indi ci tund bi waaye Ousmane Dramé ku garaaw la ma ne ko ah mun nga ko mos a crochet bu timisee jàndale matt nga dee kooku amul benn werante euh, ma ne ko yóbbu ma kooku laay seet. mu ni ma ah man nag demuma ma ne ko fan la yoon bi nekk. waaw mu ma yoon bi ngay jël boo demee ba ca kaw am na sële bu yoon nga def li def nii ma ne waa d' accord. ma jël ma dox dox dox ba mu yàgg rek. mu daal di jékki-jékki rek daal Lamine ma taxaw mu daw ba ñëw ba ci nañ dem aw yaram bi daw na bañ eggee jamagaajo ba ñuy dugg jamakaajo mhm. kii dañ ko fekk ci digg dëkk bi mi ngi sole yor sémmiñam di dóor mu ni ma mbéye nga na le ñu egg si nuyu ko mbay jël yóbbuñ ci kër gi ñu dal mhm. kër ga nag benn moodu moodu moom moo tabaxoon kër daal di bàyyi seen kër gu mag ay néeg yu baax nekk fa ay néegi ñax ak yooyu ñoom ñi fa leen daloon nekk ci béy yi di lekk rek moom ak Ousmane Dramé yaa ngi dégg Ousmane Dramé moo nekkoon secrétaire moo daan jàpp xale yi waaw di leen envoyé fële euh, Kaolack <laughs> ci benn Seeku Ndiaye xale bu mu jàpp rek daf lay balancer ci horaire bi nga dem seeti Seeku Ndiaye bi nekkoon Kaolack yàlla yàlla yàlla la voilà mu ngoog léegi nag mbay Babacar noonu la doon dund ak moom mhm. bi ma ñëwee mbay dem joxe dépense léegi añ jot ñu tegal ñu ceebu jën bu xonq mhm. gis nga bi ñu reeree ba pare añee ba pare mm-hmm. euh, Ousmane Dramé nag du julli mais gis na xalima gi mm-hmm. bindam ni mu rafete mm-hmm. ndax dafa jàng léegi mi ngi bind nag sax benn cigarette Marlboro ma di ko xool nii léegi bi ñu pare nag ñi war a attaaya léegi sëriñ bi mooy xiim mbay ne na naanul keebaa nee na naanul xale yi naanuñu léegi waaj ji bu defaree ñaari kaas ma jël benn mu jël benn ma jël benn mu jël benn gis nga ñu pare ma jël sama baaraam bii nan laa ko defee ci lupp bi. ne ko naaj naaj naaj. waaw dama Babacar. Ah. kii. ah bu la yóbbu fenn. tey jaamur ko suba. dina lay jaamu. Ah, man mii may jaamu yàlla. macha allah mbay bi ma jogee bi ma jógee ñuy ànd. di dem mbay topp sama ginnaaw mu ngi yore benn bant di ko jam ni ci suuf. sol pantalon jean bu mag. ak benn pull bu rose. Mm. bu ñu doxee ba sori. ma jékki-jékki ma ne kon mbay mu ni man maa ngi yem fii ma ne ko mbay mbay na ma ah sëñ bi ma ne kaa ah, mun ma daal dara leeru ci ma ne ko waxewu ma la ko fii ca nekk ba laa ko wax nag maa ngi dem hmm. mbay may dem mu taxaw di ma xool ba mu yàgg ma wëññeeku dellu ci Ousmane Dramé hmm. waaye fekk ci bëccëg gi hmm. bi ñu nekkee ak Ousmane ci néeg bi damaa jékki-jékki mbay jóge foofu ma ne ko mbay utal ñu beneen mu daal di may jël indi ma ci beneen néeg man ak Kéba mbay daal di ñëw rek plongé noonu ma gis mu takk fii takk ay bagage ma ne ko mbay xanaa waa ji moo jox lii mu ni moom mooy borom jamono moom mooy def nii mooy def naa xam naa boobu temps war na ay bagage yu bëri <laughs> ma ne kii da lay ko de war la ma bëggoon a yóbbu allahu akbar loolu ca la moo wax waaw waaye mbir ma mu jub sotti mu ngoog léegi nag mbay daal di jóg de mhm. dem ca sëriñ ba mhm. rek kebaane ma Mamadou Lamine ma ne kaa ah, mu ne ma Babacar ngay xeexale de ma ne ko xeexale mu ne ma bi jóg na ma ne ko fu mu jóg mu ne dugg na ci wanag bi tekki na kaala gi leel baa ngi feeñ ma ne ko kii du gis jinneem kii mu ne ma ma ne ko pare na ci kattanu yàlla bi mbay dellu see ma ne ko delluñu ca néeg ba mu delluñu ca néeg ba ci lañ soog añ nag naan ataaya jooju nag léegi nag bañ déparé dem ba ca ginnaaw dëkk ba mbay bañ tàggatoo ba mu wàññeeku léegi ma ñibbi ba bés bi dellu si bésu alxames xaw ma àjjuma suba teel mm. lambay jékki-jékki na ci néeg ma nekk saraax taxaw indiwul fas indiwul dara lépp fa la ko wàcc sëñ ba tamit fa la bàyyi bagage am mu ma mu ma ma loo takk demal fële nga tekki ko a nga soog a ñëw mbay Babacar dem ca àll ba sukk tekki bagaasam am yëpp rocci rocci suul daal di ñëw ne ma maa ngi ni léegi nag mbay euh, ma laaj ko Ousmane Dramé mu ni ma dugg na ci horaire bi ba fa jógee léegi ma ne ko timis nu mu ko demee feebar feebar bu métti feebar bu métti métti ba damaa ne ma yóbbu ma man xey duma la yobbe hôpital yow da nga sëriñ nga ma am gënu sëriñ yeen ñaar ngeen fenqlante yow luppe nga kon kay léegi boy wër da ngay wër boy dé da ngay dé waaye man kay duma la yobbe ben non la ko waxe allah léegi nak ah, ci kàttanu borom bi taraka taala mhm. fofu nak la mbay sogo takko nak mhm. manam yanu dara ji nak mu nek ci jambar lol dañ dan jël suñu bagage yëpp ëmb ko mom mu yanu ko ne ma sëñ bi doxal ma dox gor gi mat mbay ndeysaan topp sama gannaaw gaaw a xiif lool. te mu jàdd ci toolu gerte yi di jeexaat <laughs> dañuy dox. dëkk par dëkk dëkk par dëkk ñuy dem. waaye li ci gën a yéeme mooy ci diggante bi nag. Mm. yàlla dogal mu am ci soxna. fekk dëkk bi tàng lool ñu nekk benn dëkk bi ñu kilimaan ngànd. Mm. séjour bañ fa def. mbay ci biti lay fanaan. ma ne ko mbay Babacar demal ci nekk bale mun ma sëñ bi bàyyi ma fi rek balay kenn dugg ci néeg bi fekk ma fi. su ma yeewoo suba day tooy xëpp xëpp ak ak ak eh, mm. bu metti nag. mbay ci bouti lay fanan ak ak kiyam num toti ak ben bank ci ben bank la doon teud affaire bobu nak mo taxoon ma tel ko wàcce wa mo tax dal vraiment 8 mois lañ and ma ko mbay kay ma ñaanal la nga dem dox dekk bi mu njëkk dem balangar la fofu la commencé di dox mu yoré balang mu yoré euh, mbuusam di dem moom yag mo ñëk ni waa sëñ wa léegi suma gisé lu ko tané ma ne ko ko gis demal balangar bam égué balangar mu fekk fa nit ko xani mën ta dox mom lañ ko njëkk testé mbay mi ngi jël fàttu bi def ko ci benn këyit tiim nit ki di ko dugal fàttu ba mu yàgg nit ki ne ko may jóg ba mu jógee taxaw dëkk bi yuuxu gars yi ne ko nii kattanu yàlla voilà kon histoire mbay dafa nekk histoire bu gudd boo xam ni euh, ci kàttu borom bu tabaaraka wa taala noonu daal la laxasaayoo euh, yor daara ji tënk ko di ci dox dox bu yéeme nag ci jamono bi ñuy ànd noonu voilà li ci xew bëri na trop ndax euh, dem nañu ba benn dëkk bu ñuy wax Medina Salam 2 mhm. mbay su ma mosaan liggéey ba ngoon jot waaw ñu laaj kenn dara na ko mais ñaar fukki yeeg fukki dërëm yi jox mbay daf koy dajale def ko ci benn pot jël ko yóbbu ko ci boutique yi bu demee di ko wecceeku benn ngoon daal mbay dem ñëw rek suk sama kanam yaram bi tàng jër ba di xonk cay ma ne ko waaw sëñ bi ma ne ko yow mbay lii lan la ni mun ma ah sëñ bi man de fa ma daanu ma ne ko daanu mun ma ne ko waaw mun ma yow ndekete yéen da ngeen ay mbir seen dëkk loo xam ne ci seen maam ngeen ko jëlee yaa ngi dégg ca waxoo ma ko may ànd ak yow ci noonu ma ne ko la loolu mun ma gën a màgget moo ma ko wax ma ne ko lu mu la wax nee na ko yow sa sëriñ bi yaa ànd moom mu ne ko waaw mu ne ko kii dafa bokk ci njóobeen gi nga xam ni fa mu dëkk hmm. mu daan ne ko waaw mu ne ko maamam da doon dem tool pour wax la ne iblis waaw maanaam armam bi gën a sophistiqué mooy fen hmm. xoolal déggul fen yi hmm. nee na fii góor gi toog ci taatu garab gi nee na tan mi doon defaraat tàggam benn nen daal di wadd nee na tan mi ne cëpp jubal si ci nen bi am lu wax nen bi defaru muy bëgg a dem góor gi téye ko nako wax ma li nga defare nan mu waxoko ko mu ne secret bobu mom lañ jobeen gi di doxe yow ki dalay sonal me do jot ci lim yor mbay nak affaire bobu nak dugg ci bob bi ma iblis nga dajal do to ko gisit nek nañ fa mbay wër na dëkk bay bëgg dé dee mais gisutul paa bi ma iblis nga dajal do dootoo gis légui nak fofu nonu ma xamné mbay fi nek len rek moko mëna firi ma babakar ko mu daal ne ma ma ne ko am wéccé ko manam nga sédelé ko mu calculer ko mu nek 80000 ma ne ko jëlal 40 mille nga jox ma 40 mille ma jël ko 10 mille jox ko ma ne ko ma yóbbante ko soxna si nga xam ne moom laa taxoon foofu ne ko dinaa ñëw fii ak ñetti fan yow nag il faut nga dem sëbi ko daal topp suma waaso maanaam nga topp samay mbokk pour mën a xam ndax lii ma yor ma nga faam déet ngay soog a mën nit mbay tàyyiwul de bi mu ñëwee mu jubal sëbi ko taan ba muy dugg sëbi ko taan bi mu wàccee suñu buntu kër maanaam sama goro la dajal daal di koy laaj kër gi mu ne ko mu ngi nii mu dem ci sama yaay sama yaay ne ko Modou Lamine li muy dox ñun sax xamuñu ko daal di koy yebal ci sama mak mu dem wër sama mbokk yëpp ba mu ñibbi si Saloum du fekk mu nekk jour tam xarit ma ngi nekk ci ben kër ñom xadi di waxtaan ni law bay wër ma ni may waxtaan mbay nekk ci kaw ben saret solo comme ni waxtal tal ma dégg muy sikar saret bi taxaw mbay cëppeelu jubal si ci man bu mu ñëwee lim mu wax daf ko ne soxna xadi mu ne ko ah, ko sa jëkër ji du fankat dem na ba seen kër gis na wajuram mais limi dund seen xet ba mu daj amu ci kenn koy dund lu mel non mhm. mbay soog nekat nit mhm. pour wax la ne kon iblis nañ ko moytu bu baax parce que fenn lay mottali ko kon histoire mbay xamna dañuy taxawale fu mu dal ci liggey liggéey wax ah ci kàddu borom bi taa jaar ak Ousmane Dramé il faut nga wax waaw man suma jaar jaar ak Ousmane Dramé fi ni ne nii wax moom dafa jëfe surtout net li lu yag yàgg plus tard yow kay mais xam naa ne li leen ci oustaz wax ni waaw lolou doyna na sëkk ndax oustaz mi suma wax dem rek mooy suma wax limi wax ni deug la ku nangu deug la ku nangu di tamit dëkk la ku ànd ak moom mu ngay dem ku àndut ak moom mu ngay dem parce que waar wii moom dafa doon wax ne amul tànki gannaaw de ci kanam rek kon liñ ciy mën a seede daal mooy moom li muy wax yëpp dëkk la ñun nag gannaaw buñu tàqalee ko ak moom suñuy gis-gis ak suñuy jaar-jaar ak suñuy def-def mënuñu toog lépp su ko defee ñu demale ko fii rek ببرن جميع جمعنا إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله